indi ay lakk-lakk yu métti yéenekaay groupe réew mi network bi di xamle ni kon bilan bi métti na ndax lu toll ci ñaari doomu aadama ñàkk nañ ci seen bakkan juróom benn ci ñoom jëlee ci ay gaañu gaañu ba ñu rawale leen ca l'hôpital am na ci tamit ay téléphone portable yi nga xamante ne dañu ko rawale ci biir yenekaay bi ba tey chauffeuru bis bi ci boppam di nettali naka la yëf yi tëddee ndakaaru dund na démb ab attentat terroriste les échos yéenekaay noonu la ko xamle di fësal ci biir kàddu Antoine Félix Diome mi ñu dénk wàllu kaaraange biir réew mi di xam ne ni ñi def mbir mi moom ñoom faaw ñu topp leen ba teg leen loxo ndax li ñu def li ñu def moom bis bi dafa jàppee ni horreur la yéenekaay bi di xam ne ni toll woon nañu ci juróom-ñaari ndaw yi nga xamante ne kon ñoo def jëf ju ñaaw ji ca fi nga xamante ne moom mooy yaraax li xew ca yaraax l'observateur jàpp ni barbarie dëgg la yéenekaay bi di xam ne ni ñi ci jot ñàkk seen bakkan ay soxna lañu seen niw ci anam yu doy waar mujj nañ ko déposé ca morgue bi nekk ci hôpital Dalal Jàmm L'Obs di xam ne ni lu ni nañ ko ci altine gi wees taxaw diggante caaroy ak jàmm gën tamit daal nañ fay sànni lu ni mel mu amoon ay aji yi nga xamante ne jëlee nañ ci ay lakk-lakk waaye li xew dëmb ñi ko def la tribune yéene kay daf leen duppee ay agresseur maanaam ay sàmbaabo yi nga xamante ne tawlu woon nañu ci juróom-ñaar nëbb seen kanam def jëf yu ñaawteef yooyu nga xamante ne kon jur na musiba waaye tamit a sàccaale li nga xamante ne moom mooy portable ñi nekkoon ci oto ba jëfin bu nu mel enquête yéene kay dafa jàpp ni gulet muy am nag ci biir enquête woyu politique yi bokk ci Pastef les patriotes ba ci parti réew mi bu Idrissa Seck daal di nañuy bind ab bataaxal ñaawlu ko bu baax a baax di sàkku sax ñu daal di ci ubbi ab enquête li war lépp daal faaw ñu def ko ci ndax Walf Quotidien li mu gis mooy Sénégal mu ngi jëm ci guuta bu fekkante ne yi la xeetub jëfin tàmbale nañ ko dund ci biir réew mi ñi ne ci biir réew mi bokk ci parti Pastef moom jamono ji amatuñu jàmm le témoin yéene kay li li ñuy teg loxo ay Pastef xibaar jamono ji le quotidien di ko dëggal ci li nga xamante ne moom mooy ay responsable pastef yu ñuy teg loxo libération sax dikkat ci ci anam yu gën a yaatu di ñu nettali ni kon Jamil Faye maire bu Parcelles Assainies moom tamit dañ ko daal di def garde à vue Maimouna Dieye maire bu Patte d'Oie moom tey ji la ñu ko convoqué ca division des investigations criminelles ca jamono ji nga xamante ne Pape Alé Niang moom dut nañ ko ab mandat de dépôt ba noppi Toussaint Manga moom ak Ben Taleb Sow naka de parquet la ñu am ko teg loxo loolu yëpp le Sud Quotidien daal di tënk ba jàpp ni njiitu réew mi Macky Sall jamono ji bëggatul gis lenn lu laale ak li nga xamante ne moom mooy Pastef ci biir yéenekaay bi ñu denk ci kàddu Alioune Tine muy ŋàññ li nga xamante ne daf ko duppee ni ay dérive ndax moom mii aar ak ak yeleefu doomu aadama li mu jàpp mooy parti bu am dayoo ni Pastef dina métti lool nga daal di koy bëgg tas tas gi ak jàpp gi ñu jàpp Ousmane Sonko ci boppam l'évidence yéenekaay dafa gis ni li Macky Sall ak yàgg togg la waaye ji la ñor ba tax ñu yàq ko professeur Souleymane Gomis li mu yàqul Macky Sall ci biir yéenekaay yor-yor da ko fàtte moom universitaire bi li mu jàpp mooy keroog bi ñu tegee loxo Ousmane Sonko jëli dogal tas partiom bi sub gàcce dëgg la bi nga xamante ne Sénégal am na ko ci wàllub démocratie waaye tamit ci gët ñi nga xamante ne ñoo nekk ca biti réew professeur Maïssa Babou tamit ci biir yéenekaay bi di ko ñaawlu gis ni xeex képp mooy li mën a téye njiitu réew mi Macky Sall kàddug avocat Ousmane Sonko ci ab vidéo gannaaw ba mu duggee ci ndakaaru ci anam yi nga xamante ne jaaxal na lool askan wi moom avocat français bi nag li mu yàkkul nguur gi naka noone Macky Sall ci boppam da ko fàtte dëggalaat na ni li mu def yépp dafay wane ni rek ragalul benn yoon Macky Sall ak nguuram donte jàpp na ni li nga xamante ne def na ko ñàkkul ni am na ay risque ndax mën nañ ko ci teg loxo Ousmane Sonko di kiliyaanam teg nañ ko loxo ni ki ajuma boobu ak léegi ba ñu ko duutee ab mandat de ba noppi l'observateur nettali nañu ay waxtuwam yu njëkk yi nga xam xamante ne def na ko ci kaso ba yéenekaay groupe Futur Média bi di xam ne ni sax moom njiital Pastef ñu ngi ko denc ci quartier ndem ci yàlla président Hissène Habré te jamono ji tembe na teg loxo moomeelu parti Pastef Sadio Mané moomeelu Al Nasr la ci Arabie Saoudite léegi leer na nañ Rewmi Sport di ñu xamal ni doomu sénégalais bi démb la daal di xaatim ab contrat am gannaaw ba mu jógee ca Bayern Munich record yéenekaay di xam ne ni kon moom attaquant suñu gaynde yi ca Al Nasr goge nga xamante ne yegg na fa